jëf ju am solo ji nga xam ne Wave Mobile Money Sénégal daat na koy amal ginaaw bi nga xam ne nag ñëw nañu si dëkk bu sell bii di Touba fekk ci fii ki nga xam ne moo di mun taxa xalif général des Mourides ñoom waa Wave nag daal di jël ab somme bu toll ci 30 millions daal di koy jébbal xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké ginnaaw nag projet bi nga xam ne daat na koy tàmbali muy complexe Cheikh Ahmadou Bamba muy daara ji nga xam ne bu noppee rek ndaw ñu bëri dañ fi mën di amal seeni ay jàng loolu yi waral nag ñi nga xam ne ñoo di waa Wave yëkkati somme bu toll ci 30 millions daal koy jébbal ki nga xam ne moo di Serigne Mountakha Mbacké mu nekk li nga xam ne mooy seen participation wala sax seen jàppandal ñu àddu wax ca leneen foofee ca diwaanu Yoof ca tefes ba nag lu soriwul dara ak li nga xam ne moo di quai de pêche yi ab néew nag lañ fa daal for ñi ko for nag mooy ñi nga xam ne ñooy maître nageur ñoo ko daal waaye nag si teewaayu gendarmerie ak sapeur pompier moom néew ba nga xam ne daal nañ koy for forfee ca diwaan Yoff daal nañ koy denc si lu sorewul dara ak li nga xam ne bi nekk mbir moo xam ne bëri na lool koy nemmeeku si jamonoy vacances ñi nga xam ne dañuy ñëw di ànd seen ay famille di feete li nga xam ne moo di vacances bi bëri na lool li fay for ay néew jamono ji ñuy ki nga xam ne moo di néew bi nga xam ne for nañ ko foofee ca tefes bi nag daal nañ koy denc lu sorewul dara ak li nga xam ne moo di quai de pêche bi si teewaayu ki nga xam ne moo di gendarmerie ak ak li nga xam ne ne mooy sapeur pompier yi mbokk yi di leen ci ànd beeg Buzz Sénégal Actu di leen wax ngeen wéy di abonné tey activé cloche de notification bi jërë ngeen jëf